ginnaaw raay boo ko xoolee jafe-jafe laa ko la plupart du temps mooy accessibilité bu ñu ko waxee si olof mooy ñu mën a dox ci seen soxla wala fépp fu ñu dem war fa bugg dem ñu war fa dem ci bu yomb te loolu mooy seen jafe-jafe ndax gis nañu ginnaaw raay dafa nekk en chantier tey gis naa handicapé yoo xam ne depuis bi ñu defee ay bi ñu defee pont autoroute à péage mënatuñu jéggi jóge jóge côté Sips wala ñu jóge côté Sotrac ñëw beneen côté bi ndax mënu ñoo yëg point yi dañuy obligé ku si bëgg a déplacer da ngay fay taxi fay junni pour mën a déplacer wu dem Pikine xam nga roi bu buñ ko waxee ba tey dafa des ndax tey li ñuy wax bu fekkee ne lii nekk si biir loi d'orientation bi yëpp matoon na ba yelleef bi ñuy wax si loi d'orientation bi yëpp jox nañ ko handicapé yi tey defe naa handicapé Sénégal waru sonn mais tey boo xoolee loi d'orientation bi xaw ma ndax sax promulgué nañ ko war de dégg ndax demagul assemblée générale yi si nekk si biir yëpp génnagul ndax gis nañ ne bourse familiale moom génn na si si biir d'orientation carte d'égalité des chances génn na si mu amaale ay bourse familiale mais loolu dafa am limite carte d'égalité des chances bi tey boo ko xoolee tey boo ko yóbboo ci hôpital dañ naan xamuñu ko donc dafa des lu bëri bëri bëri loo xam ne war nañ ko def